loolu nag la président de la république woote ci wàllu set setal ak dindi xat-xat yi nga xam ne moo ne ci dëkk bi moo xam ci Dakar ak dëkk yi ne Sénégal yëpp ñu gis nag Touba am ci pas-pas bu rëy dem nañ Daaru Minam dem nañ euh, quartier yu bëri waaye fu ñu dem rek fekk nañ population yi takkal seen bopp xaaruñu état ñu kenn ba loolu waral tey ñu ñëwoon fi ni ñu ko président digalee ñëw saytu si liggéey bi te euh, seetlu tamit ne moyens yi war nañ ko gën a yokk ndaxte ku gis engagement bu toll nii gis pas bi ci nit ñi am mooy état war na ci gën a euh, dugal loxo loolu it euh, buñ ci soññee dinañ mën a wane it ne président am na yéene ci Touba ndaxte ginnaaw autoroute bi gis ngeen liggéey yu am solo yi mu fi def waa urbanisme ñu ngi may wax liggéey bi nga xam ne tàmbali nañ ko ci liggéey euh, assainissement bi ngir saytu ko étudier ko ba nga xam ne danañ ci mën a def li ci war waaye gisoon ngeen it li nga xam ne def nañ ko ci wàllu inondation muy ay jéego yu am solo tey jii nag am na yeneen liggéey yoo xamante ne it taxawal na ko li ci jiitu mooy ci ni ñuy andee mbalit bi buub ko valoriser ko mooy li nga xam ne moom la ñuy wax centre intégré de valorisation des déchets président bi ko waa banque islamique de développement euh, defalee financement bu mag boobu li ci njëkk a xalaat mooy dëkku diine yi rawatina Touba mu def ci benn fii ci Touba liggéey bi tàmbali na am boo xam ne ci Tiwaawoon la am boo xamante ne ci Kaolack la leneen li it mooy tali mbeddum 30 bi nga xam ne am na yéene defar ko mu doon beneen rocade doot beneen corniche boo xam ne dañ ko defar ndax euh, yéene bi mu am ci Touba ndax it fexe ba dëkk bi euh, wuyu li nga xam ne euh, borom dëkk bi moo ko moo loolu la ci bëggoon. leneen li nag sëñ bi mooy soññ sama mbokk taalibe yi rek ndax comme dëkk bi ñun ñëpp ci bokk yam dëkku sëñ tubaa li ñu war mooy gën a sellal doxalin bi ci li jëm ci canaux yeeg yooyu ndaxte bi ma xëyee tey di wër bëri na ci loo xam ne fu ñu dem rek dañu naan branchement clandestin te branchement clandestin nag. Euh, bokk na ci fukki nit di gas yeneen nit di suul ndaxte ku ci ne dëgg la euh, am nañ yéene sa fos nga am lu la ko kuréel waaye bu fekkee dañuy defar ay caniveau sëñ bi di ci jàpp état bi di ci jàpp. mooy bis bii nga xam ne bi Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ndigal wax ma ne naa ci yëkkati kàddu muy liggéey boo xam ne dañ koy gàttandoo nawet bi ndax ku ne xam na ne ci màggal Tuubaa lañ baaxoo def mbari mi waaye daaw ñu gis ne. xat-xat yi ak jafe-jafe yu bari woon na ci biir nawet bi sëriñ bi joxe ndigal ne nañ ci gàttandu dëkk bi ma joxe ndigal sëriñ Cheikh Moussa Abdoulatif mu woo taalibe sëriñ yëpp rawatina nag njabootu maam Cheikh gi nga xam ne ñoom manis naa wax ne ñooy yoon wi ndax seen maam te waxtu nañu di ko ànd di ko liggéey ci positif ànd ko taalibe sëriñ Touba yëpp waaye liggéey boobu nag na ma ko waxe woon ca keroog bu ma woote liggéey bi jàppale commune bi la Serigne jublu kon Serigne Abdou Lahad liggéey boobu ñuy def yaa ñi nga seqal commune bi te sëñ bi tànn leen digal bàyyi leen fa ñoom yéen lañ koy defal dimbale leen ko la ma ca fàttali woon rek laay waxaat mooy eh, dëkk bi nañ xam ne commune bi alali sëñ bi ña fa nekk taalibe sëriñ bi moo leen fa teg luñ ciy def itam ñoom lañ ciy gàttal ñoom lañ ciy dimbale kon bu ko ñëpp déggee noonu xam ne doonut lu beru wala lu bedd ko lu ne nekk na le waaye dafa mel ne am nekk ci biir kër sëñ bi kon loolu itam nit ñi nañ ko xamee noonu liggéey bu jugati rek te bàyyi ko ñoom ñu ànd ko ñoom ndax loolu mooy njëriñu dëkk bi kon ñi ngi nuyu Abdou Karim di ko sant bu baax di ko gërëm ndax ñëw na fi ci ndigalul président ngir ànd ak ñoom ci liggéey bi ngir wane ci seen pëstéef ak seen jëf ak seen taxawaay ndax xam ne lépp lu ñuy jëf ci dëkk bi rek kenn waru leen ci ay kon ñu ngi ko yóbbante nuyoo ci président waaye moom itam ñu di ko sant bu baax di ko gërëm ci taxawaay ak yitte ji nga xam ne wane na ko ci liggéey bi muy loo xam ne nag du kiimaan ci liñ xam ci moom ndax yàlla def na bañ koy xam booba étudiant la amagut sax liggéey tàmbaleegut a liggéey sëriñ Moustapha mu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di buntam ci kër Sëriñ Tuubaa mu am seex lool mel ne taalibe yi ne ci biir daara ja dañ ko xëy ba tey loolu lañ xam ci moom loolu nag ba fi ne mosuñoo gis lu ci sopp ko ci moom eh, ñu gis ci moom itam yitte ak pësteef ak xereñ kon gëm na ne lépp loo xam ne yan nañ ko ko rek àttan ko te wane na ko ci lii ndax bi mu tàmbalee liggéeyam rek Touba la njëkk ñëw ngir xam ne liñ ko dénk Sénégal gépp ko moom waaye Touba am na ci cër ndax mooy ñaareel dëkk bi gën a mag Sénégal waaye Touba itam mooy kër Sëñ Touba kon moo xam ne ab liggéey foofu la ko war tàmbalee liggéey bi itam biñ koy defaat mu ñëwaat jiite si ko ànd ak mboole ñu ngi ko seqal di waa ONAS ak ñeneen service yu waaye mu ñëw jiite su ko ànd ak mboolem ñu war a àndal kon dañ koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne lépp lu ko waaye jëfal lu ne te jëfe ko posture pay gi nekkul ci loxol kenn ku dul moom kon nag ñu ngi koy ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa suñu borom dimbale ko ba mission bi nga xam ne yan nañ ko ko te muy mission bu diis.